Abdoulaye Mbow maa ngi lay nuyu. waaw ñu ngi leen di fay bu baax. Abdoulaye Mbow euh, dossier euh, Sonko nekkaat ci xolu actualité bi ndax leaderu Pastef bi euh, convoqué nañ ko ci 3 novembre bile ban analyse ngay def ci bile convocation te fi ñu toll nii maanaam at rek moo daal di des ci élection présidentielle yu 2024. alors bu ñu nee Ousmane Sonko dafa war a wuy damay jàpp ni lu ñëpp doon xaare te lu normal la. dossier la goo xam ne dafa nekk ci kanamu yoon te boobu ba léegi yoon euh, mi ngi koy saytu amaana euh, gannaaw bi nga xamee ni euh, dossier bi kalaate na ci atum mars février mars deux mille vingt un ak la ca xewoon lépp ñu jàpp ni Ousmane Sonko fu mu toll nii mettre nañ ko sous contrôle judiciaire donc la sa desoon rek moo ñu auditionné ko donc auditionné la ñu toll moo tax ñu woo ko. donc woo giñ ko woo dafay nekk li normal waaye gisuma si lenn loo xam ne rek war nañ see mën a xalaat euh, euh, présidentielle war nañ see mën a xalaat nemmeeku tout wala ñu si war a xalaat la leneen Ousmane Sonko dañ ko war a woo moom la doon xaar te moom génn nu wax ko si vidéo wax ko ak ñoñam ay militants ak sympathisants ak sénégalais yi de manière générale leen du yàgg tuuti woo waaye woo diñ may woo pour déglu ma parce que boobu ba léegi dégluwuñu ko gannaaw bu ñu dégloo Aji Sarr ak ak patronam ak déglu patronam ak ñeneen ak donc yoon la woon nag euh, Ousmane Sonko war a dem wuy ji te defe naa ni mbir mi leer na woo nañ ko xam nañ kenn ñu ko woo euh, léegi nag day dem jàkkarlook juge ba mu toog mu kenn juge bi toog mu laaj ko mu tontu ko bu paree def naa ni mu ñibbi këram parce que dépassé ñun nañu étape placement sous mandat de dépôt Ousmane Sonko gannaaw bu ñu ko defee sous contrôle judiciaire fu mu toll nii nous sommes uniquement si cadre li nga xam moo audition te defe naa ne nag euh, xel waru see mën a ñaaw si lu ma jàpp euh, euh, ba nga xam ne moom bu wuyjee dinañ ko déglu bu paree daal di ñibbi këram. ñu bëri tiit li amoon euh, euh, ci mars at bi ñu weesu dina daal di amaat est-ce que yow bokk nga si gis nañ tamit takku der yi euh, pratiquement ñu ngi fépp ci ndakaaru ak fépp foo xam ne yaakaar nañ ni manifestation dina fa am loolu ban jàngat nga ci am est que ragal nga ñu dund liñ ñu dundaat li ñu dundoon. ah déedéet bokkuñu nekkuñu si même situation bi nekkuñu si même contexte bi parce que atum mars deux mbir mi dafa kalaatee. Euh, maanaam xel yi yi ñaaw ci loolu parce que gis nañu ni euh, faagaagal nañu politiquement Karim Wade euh, teg ci Khalifa Sall li ci jàpp ni dañuy waaj a faagaagal politiquement Ousmane Sonko donc yoon la woon militants yi ne ñoom duñ ko seraan sympathisants yi ne duñ ko seraan ay sénégalais ne duñ ko seraan waaye nag la la taxoon mbir mi jur mu juróon ba ay bakkan rocc defe naa ne tollootuñu si niveau boobu niveau bi ñu toll mooy déglu encore une fois Ousmane Sonko audition la ñu wax te defe naa ne war nañu mën a yem si leeral ni audition lañ koy woowee maanaam dañ toog ñu laaj mu ñu mu tontu amaana këram parce que ma jàpp ba tey te defe ni yoon leeral na ko euh, bu fekkee ni violation amul feneen mooy ni euh, fañ ko waroon placer su mandat de dépôt étape boobu weesu nañ ko léegi nag li nga xam ne nag moom la ñu war a mën a ne communication bu baaxul la te gouvernement bi di ko def mooy saa bu ñu woowee kilifa ñu gis partout si dak Ndakaaru ay char de combat ay dragon ay unité yu déployé armée jusqu'au temps lacrymogène fee seen loxo yi ay niif ay matarak ay lu ne def naa ne loolu ñu war a a moytu parce que dafa nekk benn image buy renvoyer souvent ci li nga xam ni dëgg la naan état dafa war a prévenir état dafa war anticiper waaye tamit dañ ko am noo xam ne waruñ ko mën a defee pour accompagner nit ki ñu invité euh, euh, woo ko pour déglu ko ce tribunal ba ba nga xam ne effectivement du joxe impression que ni euh, li ñu dégg réquisitionné gendarmerie réquisitionné police réquisitionné sapeur pompier Sénégalais bi day jàpp ni kon ñii am na lu ñuy waajal dès l'instant loolu dugg ci boppam kon boog dañuy jàpp ni lu lekk mën na xew si li nga xam ne moo di wàllu jàmmarloo diggante takk der yi ak askan wi te def naa ne nag loolu war nañ ko mën a moytu en adoptant une autre forme de communication présentielle sur le terrain par rapport ak ñi nga xam ne ñoo di takk der yi ba nga xam ne effectivement daañu mën a jëm si mbir mi yegg ci si mbir mi euh, wax si mbir mi génn si mbir mi te lépp jàmm lal ko. Euh, ñu bëri foog ni justice bi dañ koy manipuler euh, pour éliminer benn adversaire politique pour élection euh, bu deux mille vingt quatre est-ce que jàpp nga ni mën nañu wax manipulation de la justice sénégalaise ci dossier Adji Sarr Sonko. donc du ma du ma affirmer ni dafa nekk justice bu ñu ci dossier bi parce que itam lu ëpp solo moo di ñu war ko mën a jàpp. mooy ni ñun yegguñu si cappaandoo si si si ñombaxtalu dossier ba dañ ko tàmbali amaan ñu ngi si digg bi gannaaw bu ñu dégloo ñee war a déglu Ousmane Sonko ñu ngi si digg dossier bi léegi nag euh, justice bi naka lay mën a taxawee damay fàttali euh, te loolu ay fee la inventé wuñu ko ni am na amoon na benn enquête préliminaire bu section recherche gendarmerie defoon te gis nañu lu mu juraloon ki nga xam moo di capitaine Touré ñaareelu mbir bi certificat médical génn koo xam ne agent assermenté la maanaam dafa waat musul gis Adji Sarr xamul aji Sarr def na li nga xam ne moo di rapport euh, jëm si li nga xam ne moo di Adji Sarr gannaaw buñ ko ko andilee mu ne dañ ko violé ma mu xool rapport bi def naa ne yow liir nga ko man liir naa ko ñu ñëpp liir nañ ko te rapport bi wasaare na tasaaroo na si réseaux sociaux yi donc juge bi naka lay comporté wo par par contenu rapport boobu donc ay questionnement la yoo xam ne dañuy jàpp effectivement sukkandikoo amaana comme ñeneen ni ñu ko waxee xëy na mbir mi dina xaw yorom yoram waaye nag justice bi dafa ànd nekk justice boo xam ne tam dossier politique maanaam dossier yu am connotation politique yëpp dafa am noo xam ne daal gis nañu nu mu si doxalee dafa daf see xaw yorom yoram depuis événement 62 ba ñuy teg loxo Mamadou Dia ak ñoom Valdiodio Ndiaye Joseph Mbaye Ibrahima Sarr ak dossier politique yi 68. jàpp soixante euh, euh, soixante euh, nu ñu koy waxee quatre vingt quatre quatre vingt huit ak yeneen ak yeneen quatre vingt treize ba ba jamono ji dossier politique yëpp dañuy gis ni exécutif bi daal dafa mel ni moom mooy jox orientation li nga xamoon justice bi waaye nag dossier bi defe naa ne nag dañ see war a def naa ko tey ci li si ëpp solo rek mooy justice bi wane ne moom justice bu taxaw la justice boo xam ne du déglu opposition si pression du déglu nguur si pression moom li ko soxal mooy wax droit mooy jàng droit mooy rendre droit au nom du peuple sénégalais ba nga xam ne effectivement ku taxaw dina ne justice bi de lu mu joxe ci décision dem ci dossier bi ñëpp nawlu nañ ko ci ñëpp kontaan nañ ci parce que li ñu li mu wax leer na euh, jëm ci li nga xam ne moo soxal euh, verdict buñ see xaar maanaam non lieu la gannaaw audition wala il dem procès ñu xaar la say xew. Euh, à part euh, Ousmane Sonko pour yow kan mooy euh, profil bi nga xam ni mën na wuutu Macky ci 2024 ci opposition bi. alors je crois bien que fu mu toll nii quand bu ñu nee Jean da ngay ki mooy Jean te Jean mun na nekk Jean ak Paul waaye tamit Jean mu na nekk Paul ku nekk mu nekk ñaari nit waaye nag moom César moom kenn la donc il faut savoir rendre à César ce qui appartient à César. et que Jean ou Paul doivent rendre à César ce qui appartient à César tout simplement jamono ji César ci biir opposition bi nag kenn mënu ko weddi moo di Ousmane Sonko moo jiitu moo ëpp doole moo moo raw ñëpp si wàllu sympathisant si wàllu militant euh, diaspora bi jamono ji président Macky Sall na mu ko mooy woon Ousmane Sonko daal nangu na ko moom la ñu fal plus forest 2017 mu jël troisième si élection présidentielle 2019 euh, gis nañu ni rôle bu ba jox doole coalition Yewwi Askan Wi si euh, ak doole gi mu jox gannaaw buñ ko éliminer doole gi mu jox coalition wala intercoalition Yewwi Wallu si campagne bi mu battre campagne bi mu battre si élection législative bu 31 juillet donc il faut reconnaître que ni jamono ji tembe euh, ka dëgg dëgg dëgg ëpp sa doole dëgg dëgg dëgg jamono ji ñu euh, jàpp ni moo ëpp chance ci atum 2024 ci biir ku jegi Ousmane Sonko la toujours il faut quand même nit yi nangul ko loolu parce deux mille dix huit neuf ñëpp dañoo d' accord ni si opposition bi que ca doole que ca ëppoon position ngir mën a sonal président Macky Sall mi ngi tuddoon Idrissa Seck donc bu fekkee ni nanguloon nga ko diw ba nanguloon ko ay jamono Abdoulaye Wade si diggante mag Abdou Diouf dégg naa ni jamono di tembe gannaaw Idrissa Seck dem na euh, Ousmane Sonko jiitu fi da ñëpp dañoo war a nangu ni moom c'est la personnalité politique de l'opposition bi nga xam ne moo ëpp Euh, si opposition bi ngir mën a jàmmaarloog présent Macky ba am chance dëgg dëgg dëgg war ko mën a wutu fii nga xam ne moo di euh, magistrature suprême. Euh, léegi Abdoulaye mbaw su weesoo Ousmane Sonko gisoo keneen ku taxaw ci opposition bi su weesoo Ousmane Sonko maanaam ku topp ci ah, Ousmane. non hmm. wax ma wax ma ñeneen ñi wax ma ñeneen ñi taxawuñu. Hmm. opposition bi kañ yaatu na. Hmm. ay nit ñi ngi fi di def déclaration de candidature. chacun il va à chance égale. mais tamit chance égale am na koo xam ne à la plus àll dans la masse moom moo jiitu parce que ñëpp mënuñoo yem au même pied d'égalité on ne peut pas parler de l'ensemble des leaders de l'opposition et dire que ñoom ñëpp ñu ngi yem euh, vingt cinq pour cent de chance mënul ne kii dafay nekk vingt cinq kii dafay nekk quinze kii dafay nekk trente cinq kii dafay nekk quarante cinq kii dafay nekk cinquante cinq loolu c'est la loi de la nature te loolu il faut quand même ñu bi Malick Gakou mi ngi ci dafay waaj def li nga xam ne euh, def na déclaration de candidature ñu ngi xaar congrès euh, le 14 novembre su ma jumul euh, ce sera le de faire une déclaration officielle ñu ngi xaar euh, gis nañu Bougane Gueye bu def déclaration de candidature docteur Abdourahmane Diouf grand intellectuel éminent intellectuel profil bu intéressant def na déclaration de candidature dañuy gis ak ñeneen ñeneen ñeneen ñoo xam ne dañuy def déclaration de candidature il y aura des intellectuels et des sommités mondiales maanaam ay sénégalais yoo xam ne on les connaît à l'international ñu liggéey sur instance ay organisation yu kawe au niveau international yoo xam ne amaana daañu def seen déclaration de candidature mais profil yi lu mu intéressant intéressant si biir profil yi am na profil bu leen jiitu euh, profil bu leen féete kanam te profil boobu jamono ji nag euh, dëgg maam mooy Ousmane Sonko. Euh, bu fekkente ni ci euh, dossier bi Ousmane Sonko justice sénégalaise daf ko daal di seetal maanaam écarté teesu viol bi ko Adji Sarr di tuumaal boobaa Ousmane Sonko lan lay gagné ci dossier bi. ah dina gën a gagné si wàllu si wàllu wàllu ora ak la koy topp dina gën a mën a gagné je veux dire politiquement électoralement. parce que am na ñoo xam ne amaana amuñu beneen gis-gis si moom gis nga gis ko dina soppeeku bu fekkee ni setal nañ ko def naa ni base base politique am base dina gën a mën a yaatu si wàllu militant si wàllu sympathisant euh, def naa ni loolu ce sera conséquence euh, positive par rapport ak li nga xam ne moo moo moo ko andiloon coolo si dossier bi bu fekkee ni effectivement loolu nga wax moo am waaye gis nañu ni. dossier bi mi ngi dem dañu xool justice nu mu koy doxalee euh, bàyyi justice def liggéeyam euh, tey nag liggéey boobu nag jaar ci yoon rek ñu ñu wax droit jàngat droit rendre droit au nom du peuple sénégalais su boobaa nag daañu gën a mën a am visibilité ak lisibilité ci li nga xam ni mooy mooy dal Ousmane Sonko bu fekkee ne ni nga ko waxee noonu la amee. Euh, laaj bu mujj loo xalaat euh, Abdoulaye Mbow ci dossier euh, quarante cinq milliards bi jur coow ay armes yu ñu jënd ñu bëri jàppee ko scandale est-ce yow scandale nga ko jàppee waaw wala déet. man ma parce que itam damay préférer wax lu tubaab di lëndëm lëndëm ak lënt lënt boo xam ne daal moo encadré dossier boobu parce que itam code des marchés bi defe naa ni lu mu si jàngat ah jàpp na maa ngi doon xool. dëgg-dëgg fan la ñuy def ministère de l' environnement euh, même bu fekkee ni dëgg la dafa am ay dafa am groupe paramilitaire yoo xam ne agent ay forêt yoo xam ne dañoo war a yor ay gànnaay te dañu yor gànnaay waaye gis nañu daal bi ñu modifié 2014 2020 2022 lépp li nga xam ne daal dossier la estampillé secret défense gis nañu gannaaw ministère des finances euh, ministère de l' intérieur la ministère des forces armées ci groupement national des sapeurs pompiers ak yu demee noonu daal waaye gisuñu fi feneen foo xam ne daal. Euh, def nañ fa ministère de l'environnement amaana euh, am na waaye nag gisuñu ko ba tax na si dossier bi état moo war a mën a fexe rek andi ay leeral yu wóor wóor wóor wóor ba nga xam ni euh, defe naa ni naataable du si am parce que plateforme avenir Sénégal bu ñu bëgg posé na question bu am solo depuis kañ la agent direction des agences des des eaux et forêts am sañ-sañ gan jëndi ngànnaay ba ñuy dugg dossier boo xam ne si estampillé secret défense mais lu si mënti am moo di ñun dañoo signé contrat mu engagé Sénégal yi engagé Sénégal euh, ñu signé ko ak koo xam ne jàpp nañu ni du nit ku jub muy Bouté Petit Bouté ñu ngi koy wër dëkkam di Niger signé nag ak contrat yeneen dëkk africain ñu ngi koy wër donc naka lañu ñu war a mën a signé te defuñu l'enquête bu wóor xam kan la ñuy signé ku mu doon ah, ndaxam jub na ndaxam ku dëng la ndaxam set na ndaxam loxam set na ñu ñëw war a mën a signé ak moom noonu euh, defe naa ni loolu tam damay jàpp ni la par rapport ak li nga xam ne moo di moo di ministère bi nga xam ne cité nañ ko dans l'affaire par rapport ak contrat armement bi nga xam ne amaana jamono ji ànd euh, na ko fii si Sénégal. voilà Abdoulaye Mbow maa ngi lay jaajëfal. baaka njëriñëf. may fàttali ni analyste politique nga.